بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi dellusiwaat ak yéen ci suñu àjjuma ji nga xam ni mooy juróom-ñetteelu fan ci shahru ramadan ñu dellusiwaat ak yéen ci sunu juróom-ñetteelu daje ci la nga xam ne mooy sous l'ombre du ramadan mooy ci suufu keppaaru weeru koor niñ ko diggante woon ak yéen démb may waxoon nañ leen yonent yi ñoom ñépp lan moo nekkoon seen mission ci kaw suuf tey nag ñu bëggoon leen a tënkal juróomi yonent yooyu nga xam ni ñoom la suñu borom yàlla tuddee ulul azmi min ar-rusul wa iz axadna mithaqa nabiyin wa minka wa min nuuhin wa ibrahim wa muusa wa isa bni maryam wa axasna minhum mithaqan galiza suñ borom mu ne jàpp na kóllëre ak yonente ya digganteeg ñoom ñooñee mu tudd ca juróom mooy minka yow muhammad ibrahim muusa ak isa bni maryam jëloon ci ñoom kóllëre gu mag ñooñu la ñuy tuddee ulul azmi min rusul mooy ñu dogg ci yonent yi nga xam ne seen mission def nañ ko à cent pour cent tey incha allah fas yéene fàttali konte ñeenti ca ñoom buñ fi yàlla dajale waatee ñu tëjee nag ca ka nga xam ni mooy seen sang mboole seen mbokk yonent yooyu bokk ci juróomi ulul azm ka ca jiitu mooy suñu maam suñu maam mooy kan mooy nuux alayhi salaam nuux alayhi salaam mbokk kon ki jiitu ci yonent yooyu mooy yonent yàlla nuux mi nga xam ne mooy suñu maam boole seen suñu borom yàlla wàcce woon na suñu bay aadama doomu aadama yi di jaamu yàlla bokkaalewuñ ko ak dara génération boobu daa di dem ñaareelu génération ñetteelu génération ba fukkeelu maas ya ñëw seytaane fu ne jaar na fa doomu aadama pour mu bokkaale ndax xam nañ ne la mën a alak doomu aadama rek mooy bokkaale munu leen a jaamuloo jant munu leen a jaamuloo weer mu daal di jaar ci ñoom ca fa nga xam ne fa la mujj daaneele la ëpp ci doomu aadama yi mooy yonent yàlla nuux ca jamonoom amoon na juróomi sëriñ yu mag kenn ki mi ngi tuddoon wadd ki ci des tudd suwa ki ci des tudd yahuusa ki ci des tudd yauqa ki ci des tudd nasr ñu tasaaroo woon ci gox yi di woote jëme ci yàlla di jàngal nit ñi bañ fa jógee faatu seytaane ñëw feeñu leen doon nit ku yiw waxtaan ak notable ya ne leen man dey ragal na fitna am ci dëkk bi ndax ñi nga xam ne ñoo nekkoon suñu royukaay ñu leen di xoole yàlla tey dem nañu man dama gisoon nañ leen defalal ay statue yoo xamee ni nii dañ leen ko mën a fàttalikoo loolee convaincre waa dëkk ba ñu defar ay statut di ko fàttalikoo sëriñ su mag soxee waaye dañ caa teg ay jamono rek ñu commencé nag di barkeeloo statut ya mujj ñu wëlbati ko di ko jaamu loolu mbokk di lu am solo lu jullit war a fàttalikoo mbokk mooy la nga xam ne mooy photo ay sëriñ loole jullit war na ko moytu kemtalal kattanam fala seytaane ja jaare woon xawmu nuux sun jamonoy tey ji it ana ñaata ci doomu aadama ñoo xam ne ñooy jàkkaarloog foto seen sëriñ jëkko ñaan témoignage la yoo xam ne nii du jeex du xaaj ala kulli xaal kon loolu mooy njëlbeenu bokkaale ci kaw suuf mooy màggal ab sëriñ loolu it yow mu lay déggal yow doomu aadama ngalawaay xamal ne ab sëriñ day munta ñàkk waaye nag lan mooy sëriñ mbokk sëriñ mooy ña nekkoon wadd suwa lañ doon woote loolu mooy ab sëriñ ndax ñoom duñu woon ay yonent ay nit ñu baax lañu woon di teete xeet bi di leen jëme ci yàlla di leen jàngal nu ñuy jaamoo yàlla loolee doomu aadama maadaama bi ngay juddu indiwoo benn xam-xam fokk nga am sëriñ bu la teete ba jàngal la sa boroom jàngal la naka lañ koy jaamoo waaye nag foofu la yem ak yow amma la ëpp ci doomu aadama yi seytaane dogal na ci ñoom leneen mooy déedéet sëriñ bi lay jàngal diine a kooku moom mooy ustaas ba wala imaam waaye nag sëriñ dëgg-dëgg ca ñoom mooy koo xam ne mooy sa yaakaaru àdduna ak àllaaxira soo fakastaloo moom ngay woow boo waatee ci turam ngay waate mooy sa yaakaar nga jàpp ne àllaaxira bu ñu demee moom am na mbooloom moo xam ne da koy woote ñëw ci kanamu yàlla la yàlla nga tabbi aljanna la ëpp ci doomu aadama yi nii lañ jàppe ab sëriñ waaye mbokk loolu njuumte mënul paase loolu foofu la seytaane jaaroon doomu aadama yi yàlla nag yebal yonent yàlla nuux mu ñëw ne leen ay yéen saw xeet lii day xërëm yii ci seytaane la jóge waaye yàlla kenn na laa ilaha illallah xeet ba yépp jàpp seen gémmiñ bismillah kii day daa dof mi ngi noonu kii du dara lu dul ku dof la am ñeneen ñu ne déedéet yuridu an yatafaddala aleykum déet moom kay daa bëgg ñu topp ko comme nee na moom la yàlla di waxal daa bëgg ñu topp ko ba lañ mujje ak moom mooy gis nga nuux ñun gisuñu mu topp la lu dul ñi ñàkk solo ci ñun yow mi dégg sama waxtaanu démb nee naa la yonent yi dañoo ñëw ngir indi équilibre ci société yi amul benn société naar ya tubaab ya asiatique ya lu dul boo demee ak jëng moo fa am ñi ëpp doole dañuy noggatu ñi néew doole yonent yi nag dañ ñëwoon di wañe ne jaam yépp jaami yàlla lañu ñépp a yem ci kaw suuf ñépp a yem ci yàlla loolu nag ña koy gën a mën a gaaw a comprendre mooy ñañ du néewal doole moo tax yonent yàlla boobu jëkk a woote di nuux alayhi salaam ba yonent bi mujj woote di suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam amu ci benn yonent lu dul boo demee ña ko daan wër mooy ay baadoola yoo xame ne nii ñoom amuñu dara loolu moo tax sax yonent yàlla nuux alayhi salaam gaa yi na ko ñi la topp duñu dara lu dul ñu ñàkk solo loolee mbokku dem nañ it ba à la fin luñ ko mujj wax mooy nuux boo bàyyiwul sa wax jiikat ñun dañuy lay daal di dóor ay xeer ba nga dee jëli la ci dëkk bi ca la nag nuux doog a wooyu boroomam gannaaw ba mu ñuy junni at yu manqué juróom fukk muy neuf cent cinquante ci ay at yonent yàlla nuux muñ na ko kan mën na ko nettali mooy suñu boroom fa labisa fihim alfa sanatin illa xamsina ama neuf cent cinquante ci at yonent yàlla ngi nuux mi ngi muñ jaamu yàllaam nga muñ wooteem ba waaw yow jullit bi dund sama jamonoy tey ndax yaakaar nga dund téeméeri at ala kulli xaal mbokk téeméeri at ku ko dund ko ko dund it xamal ne fee ba moom coono la rek ci say mbokk coono la ci say mbokk loolu moo tax ba ñu bàyyi xel yonent yàlla nuux muñ gëm muñoon suñu dund ñun daa gàtt lool ngalawaay buñ ko foyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax ne sama dund xeet la ëpp ci ñoom ñi ngi faatu diggante soixante ans ak soixante-dix ans loolee ñu bàyyi ci xel képp ku passé âge boobu xamal ne yaa ngi ci ab bonus rek waaye dund xeet bi moom soixante-dix ans la yem su ko defee ñu bàyyi xel loolu bu baax ngalawaay ah sunu dund gi bis bu nekk ñu jàppe ko ak dund semaine bu ne ñu jàppe ko ak dund di bàyyi xel qawmu nuux alayhi salaam noonu la suñu boroom jële nag indi ay ordre am jox asamaan suuf ordre ne ko ubbil say van mooy ubbil sam ndox jox suuf ordre ne ko ubbil sam ndox faltaqal maau ala amrin qad qudir la nga xamee ne mooy ñaari ndox yi daje suuf fees dell ak ndox mbokk junni at yeneen ci yàlla noox woote ko yàlla dogal soxnaam ci boppam gëmu ko doomi boppam gëmu ko ba ñoom ñaar dañoo ànd lab ca biir ndox ma loolu it mu ñuy jàngal ne yàllay dogal ci yërmaandeem ku ko neex mu ñuy jàngal ne njuumte mënul weesu li ëpp ci nit ñi gëm tey mooy dañ naan a kii day mooy Cheikh Thiam Cheikh Thiam day ko jàng la xam na sharia sëriñ bu mag la léegi nag dee na doomam moom la ñuy samp léegi kooku mooy sëriñ bi bal bu deewul sax mboolem lu mu jur dañ leen war di sumil mbaxanaak sumil ay dàll di leen toroxlul màggal leen lu waral loolu mooy deret suñ càm moo nekk ci moom mbokk déedéet mbokk suñu borom yàlla amul kenn ci jaamam yi ko ma garantir ci ne maadaama baax nga loo jur day baax loolee dana ñëw ca kanam ca yonent yàlla ibrahim baka suñu borom ne def naa la nga nekk imaam ci ñuy ñëw ba sa ci sa gannaaw ba ilaa yawmi diin def na ko wa min zurriyati sama njaboot yépp def leen ay imaam borom bi ne ko laa yanaalu ahdi zalimin déedéet tooñkat yi bokkuñu ci suñu borom it tagg nuux alayhi salaam tagg ibrahim na wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin ñaari yonent yu màgg yu kawe yooyu seen njaboot da am na ca ñu baax waaye am na ca ay tooñkat saay-saay yu bir ak caay-caay loolu it kon nga la waaye bu dee am nga ab sëriñ bu la mas a jàngal dara ci diine fonk ko moo gën ci koy fonk ci kaw suuf ki lay may alal dina tabaxal ay kër loolu mbiri àdduna la waaye amul koo war a gën a fonk ci ki la teete jëmale ci yàlla waaye kooku it mbokk bala ngaa fonk kenn ci njabootam gëstu ko ba xam ndax moom ma nga jaar ci tànki baayam wala tànki maamam bala nga ko fonk loolee di mbir moo xam ne ku ne ci ñun war na caa bàyyi xel suñu borom yàlla bim na mee xettali nuux ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm borom bi ne wa ma amana maahu illa qalil lu néew ñoo gëm yonent yàlla nuux lim ba gën a rëy buy mu fassiroona yi wax nee nañ ba muy dugg ca gaal ga keroog juróom ñetti fukki nit la àndal am na ñoo xam ne lañu wax matul sax ñaar fukki nit juróom ñetti fukki nit la àndal ci gannaaw ba mu wootee junniy at loolu di bind bu ñu yàlla jàngal ngalawaay ni ci tey daje yi nga xam ne dañ koo sos ci diine ren dañ ne amoon na cent mille personnes ñu teg mu amaat deux cent personnes ñu dem ba mujj ñu ne ay millions ñoo fay daje kon ñu jàpp ne lii day dëgg la mbokk déedéet dëgg kenn du ko xoole ci mbooloo dëgg dañ koy xoole ci tegtal yu wone le ci yàlla la jóge yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaama dana am yonent bu yàlla yónni mu woote ba mission jeex buy ñëw yowmal qiyaama fukk nit ñoo koy topp mu ne yàlla ñii ñoom rek ñoo ma gëm dana am yonent bu ñëw ñaar lay àndal yàlla ñaar ñi rek ñoo ma gëm dana am yonent bu ñëw kenn lay àndal yàlla kenn ki moom ma gëm bi ma woote dana am yonent yi génn na yàlla man ba ma wootee kenn gëwuma ca loolu mbokk mi ngi noonu bani israil suñu borom nee na kullama jaatkum rasulun bi ma la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazabtum wa fariqan taqtuluun ñii di bani israil yàlla nee na fu ma leen yónnee yonent mu wax leen lu leen neexul ñii ñu weddi leen ñii ñu far leen sax rey seen bis bañ njëkkee woote ca la ñu leen rey kon dana am yonent yu bari yu yàlla yónni ci kaw suuf kenn gëmu leen ba noonu la ñu demee yowmal qiyaama léegi nag kon dëgg fan lañ koy xoole ci ne un million daje na fa cinq cent mille daje na fa ñu jàpp ne kon mbir mi dëgg la déedéet mbokk loolu du dëgg loolu ci seytaane la jóge mi ngi noonu mbokk nañu xam ni ñaareelu yonent bi mooy sunu maam ibrahim suñu borom yàlla bi mu alagee xawmu nuux nuux ñëw na ci kaw suuf moom dong la yàlla def ak njabootam continuer jurante looloo tax doomu aadama yi ñaari maam lañu am maam bu jëkk ba mooy aadama alayhi salaam ñaareelu maam bi mooy nuux xamal ne ñiy dund ci kaw suuf tey di ay chinois di ay indien di ay noir ñoom ñépp yonent yàlla nuux mooy suñu maam boole seen waaye combat bu continuer seytaani jaaraat ak doomu aadama yi fam jaaraat ak xawma nuux ba kaw suuf ñépp di bokkaale jamono boobu nag la suñu borom yàlla yunni ay yonent yu bari ba bokk na ci yonent yooyu yonent yàlla Huud yonent yàlla Saalix waaye nag mu yónni xaritam ba yonent yàlla Ibrahim fekk kaw suuf kenn waxu fi laa ilaha illallah yàlla tànn ko xamal ko la nga xam ne mooy mooy tawxiid mu jàkkaarloog waa dëkkam jëkke ca baayam ay sama baay xamal ne lii ngay jaamu de ay xërëm la yërulu la njëriñ yërulu la lor ci seytaane la jóge ay baay bàyyi ko baay bi gëdd ko dàq ko mu dem ca pénc ma wax ak waa pénc ma ne leen li ngeen di jaamu ay xërëm la waaye yàlla wàcc wu ci lay waa dëkk bi daa di jommi ci mbiram na koy bu ñu fontoo ibrahima ngir woo seeni xel bàyyi ba ñu am benn feet ba ñoom ñëpp ñu génn mu dem ca fa ñuy denc seen yàlla yi dammate yàlla yépp bi waa dëkk bi jëlu si yéemu mooy yàlla yi ku leen def lii mu ne waaw laaj leen leen bu dee ñoom dañuy wax waaye gannaaw ba ak cet da duggaat seen biir ñu ne kii daal taal leen ko bu dee ibrahima mi moo ko def taal leen ko ca xam nañ ne réew mi moom dong moo daan defee yàlla yi bañ demee ba jàpp ko pour taal ko suñu borom yàlla daal di ñuy wax ni wa qul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim jël nañ ibrahim sànni ci biir sawara suñu borom yàlla jox ordre sawara wi ne ko nekkal jàmm nekkal mucc ci kaw ibrahim loolu yow jullit sànq maa ngi lay wax kan yonent yàlla nuux yàlla bi mu bëggee alag waa suuf asamaan la jox ordre jox suuf ordre ñu génne seenum ndox ba mu alagee ñëm bëgg a alag mu ne yaa samaa u aqli i wa yaa ard abli i maa ik maa ik ay yow sa asamaan arrêtel sam ndox suuf wannal sam ndox waqudiyal amru mbir ma yépp daal di sotti yàlla sauvé ña ko neex ca gaalug noox ga tey jii yàlla mi joxoon ordre ndox mu ñëw moo jox safara ne ko bul lakk moo tax ibrahima sànni nañ ko ca sawara ba sawara wa lakk lu dul buum ya loolu it mu lay won e yow mi nga xam ne yaa nekk ci palaasu fitna gëmal ne lan yusiibanaa illa ma kataba allahu lana dara duñu dal lu dul lu yàlla tudd kese wallahi man nga am ak sa jëkkër benn lal yàlla nattoo ko feebar buy walli te feebar ba du la mës a dal man ngaa nekk ak nit benn bureau yàlla nattoo ko feebar buy walli te feebar ba du la mës a dal man ngaa nekk ci gox boo xam ne xamoo fa ku am feebar bi nga xëy xëy feebar bi dal la lu waral loolu mbokk mooy yàlla subhanahu wa taala mooy dogal ci jaam bi lu ko neex naam dàqantewul ak nga jël say matukaay ndax matukaay gi ci jaamu yàlla la bokk yàlla moo ko wax xuzu xisrakum jël leen seeni matuwaay waaye nag matuwaay yooyu nga jël doo gëm ne moo lay aar da ngay gëm ne sa warugar la waaye yàlla rek moo lay aar looloo tax yàlla aaroon nuux ca ndox ma nga xam ne mëdd na montagne ya aar ibrahim ca sawara wa nga xam ne mi ngi doon takk jol joli jëw jëm kaw asamaan naka noonu it kum bëgg a aar amul lenn lu la mën a lor yal na yàlla aar ñu ci àdduna ak àllaaxira nañu xam ne am na benn kàddu gu ngeen di yàgg dégg mooy allazina amanu walam yalbisu imaanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ñi nga xam ne dañoo gëm te seen ngëm nga day jaxase wuñ ca benn tooñ ca mooy benn bokkaale ñoom daañu am sécurité ca ñooñooy ñu jub xamal ne loolu mi ngi génne woon ca làmmiñu ibrahima alayhi salaam mi nga xamee ni nii xeetam menacé nañ ko ne ko dañ la rey rey bu tar waaye gis ngeen noonu la def yow it loolu jullit looloy sa ngàndaay bul ragal ku dul sa boroom saxal ci ay ndigalam ca xam ne lu dul lu yàlla dogal mënul dal ci yow abadan mbokk Ibrahima dars boobu la ñu woon mooy joxe bakkanam ngir défendre dëgg ngir namma dee ci dëgg ndax kat Ibrahima xamul woon nekk yàlla da ko cee musal waaye pare woon na pour dee ci dëgg ñaareelu leçon bi ñuy jëlee ci Ibrahima mu ne wa inni muhaajirun ila rabbi sa yahdin maa ngi gàddaay jëm sama borom dana ma jubal mbokk jullit xam leen ki jëkk a gàddaay ci kaw suuf mooy suñu bàyyi Ibrahima alayhi salaam gàddaayil fa la jóge Irak ñëw dal si fa la nga xam ne mooy Palestine loolu it yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ñu jàngal ki gàddaay dëgg-dëgg mooy ki gàddaay la yàlla araamal ci moom looloo tax ba bépp liggéey boo xam ne dangaa dem bañ ne la ah lii kat daa xaraam ngal la waay gàddaay ko kër goo nekk mënoo faa jaamu yàlla ngal la waay gàddaay ko dëkk ba nga munta jaamu yàlla ngal la waay gàddaay ko loolee mooy la bind bu rëy boo xam ne ibrahima alayhi salaam jàngal na ko ñuy ñëw ba ilaa yawmi din bokk na ñetteelu bind bi mi ibrahima jàngal ba tey mbokk mooy sa njaboot nga xam ne dénkaane ak yàlla la yaa ngi naan sama doom sama soxna sama nangam waaye déedéet moomoo ko ak ndénkaane ak borom bi la looloo tax suñu borom xëy-xëy ibrahima bàyyi ko ba mu ëpp juróom ñetti fukki at amul doom mu dog koo may doom xoolal loolu koo xam ne mat nga ko mat nga ko maamu maam waaye mu dog koo may doom bëgg doom ja loolu muy ismail suñu borom jox ko ndigal na ko yóbbu ko ca àll boo xam ne kenn dëkku fa ca montagne Makka ya fu mat 600 kilomètres ak fi mu dëkkoon nga bàyyi leen foofu Ibrahima ànd ak ko nga xam ne mooy Haajara ak doomam jay Ismaïl sànni leen ca àll ba lu tax ngiree yàlla moo ko ko digal loolu mbokk mooy njaboot gi xoolal la neex yàlla nga def ko ci wallahi bu yàggee rek yàlla wëlbatili leen ca la la neex waaye ku fàtte yàlla sa njaboot tàggat leen ci li la neex bis bu ñu màggee yàlla wëlbati leen ñun sax ci loo xam ne neexu la ca mënoo ci dara loolu moo tax ba ba Ismaayila demee ba am fukki at ak ñett ca la ko suñu borom ne demal nga daal di rendi sa doom jooje di Ismaayil Ibrahima ñëw ci doomam ne ko sama borom nee na ma rendi la mu ne ko bàyyi dafa li la yàlla sant ba mu demee ba tëral ko ngir rendi ko suñu boroom joxe fa benn dars boo xam ne kenn waru koo fàtte ba ilaa yawmi diin mu ne fa lamma aslama bañ demee ba jébbalu mbokk da ngay dégg ci rajo yi télévision yi jébbalu leen jébbaloo wóor ak ay dëgg jébbalu day mooy wóor waaye problème bi mooy ci ku ñuy jébbalu ak nan lañ koy jébbalule mbokk ci kenn dong dong lañu war a jébbalu muy suñu borom jalla wa ala wax naa la ko démb kii nga xam ne mooy rendi soba daf ne aslamtu ma suleyman lillahi rabbil alamin maa ngi ànd ak suleyman di jébbalul yàlla kon yàlla rek la ñuy jébbalul naka lañ koy jébbalule mbokk jébbalu mooy joxe sa bopp mooy li yàlla santaane gëmmal tëxal dégg naa topp naa moo tax ismaila nangoo tëdd ñu rendi ko ibrahima nangoo tiim doomam rendi ko ca jàpp naa mboolem lu ñu yàlla sant amu ci lenn loo xam ne dana jege loolu kon jullit yaa ngi noonu lu yàlla digle neex na la defal tere na mu neex la ak mu naqare la moo yem bàyyil lii rek la ñuy roye yonent yi màgg yooyu suñu borom netti lu ñu seen histoire mbokk kaaba gu tedd gi suñu borom yàlla man ka jaarale ci loxo ibrahim moo tabax kaaba ga moo woote jëme ci aj ibrahima alayhi salaam yàlla barkeel ko barkeel njabootam moo tax xatta bu ñuy ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax yàlla yal na nga julli ci moom ni nga jullee woon ci ibrahim barkeel ko ni nga barkeele woon ci ibrahim mi ngi noonu yal na yàlla saxal ñu ci aw yoonam mbokk gannaaw ibrahim la yàlla tànnaat keneen ci ulul azmi min rusul muy Muusa alayhi salaam mi yàlla dogaloon mu dajeeg buur bu kaccoor bu bon boo xam ni ay jeexitalam ba tey boo demee Égypte fekk ko fa muy loolee mu tabax di pyramide yooyee bokk ci les sept merveilles du monde yàlla yónni Muusa alayhi salaam ci moom gannaaw ba mu jaarale ay kawtéef yu baree baree bari ci jiitu loolu ndax Muusa alayhi salaam firawna moo ko yar ci paleem gannaaw ba muy rey mboole mi doom yu góor ngir bañ a ngir bañ a dajeeg doom boo xam ne mooy daañel nguuram waaye la ma leen waxoon sànq yàlla bi mu nammee musal Muusa def na yaayam sànni ko ca dex ga danaa ko delloo ci say loxo yaay ji sànni ko ca dex ga booyi pale firawna for ko ñu jël ko yóbbu ko ca pale firawna firawna moo ko dundal ci alalam ba mu màgg yàlla doo ko yónni ci moom loolu di kawti fi yàlla Muusa alayhi salaam ñëw woote fekk waa bani Israil ñi ngi leen di teg lu gën a métti confinement bi ñuy dund lu gën a métti à coronavirus bi ñuy dund ca mooy ñi ngi leen doon teg mbugal bu tar firawna doom bu góor bu judd mu rendi doom bu jigéen bu mat a liggéey mu yóbbu ci ay chantier ñu def leen ay jaam mu leen di toroxal suu al azab gën jaa bon ci toroxal ca la yàlla nag doog a yónni yonent yàlla Muusa Muusa ñëw daa di waar firawna mu bañ yàlla na ko génneel xeet bi mu génne xeet bi yàlla xaral leen géej ñu jàll gannaaw ba yàlla labal firawna ak i notable am loolee mbokk suñu borom mi ngi ko def ñeel képp koo xam ne da ngay muñ bul jàpp mukk ne coono yi ma nekk mbaadu yàlla dama fàtte déedéet mbokk bani Israil lañ saxoon ca seen toroxtaange ga leen firawna doon toroxal guddi ji leen toroxal bëccëg wala mbugal yam leen doon mbugal guddeeg bëccëg loolee mbokk at yu takku la waaye lam yàgg-yàgg yàlla mujj na leen caa génne def leen ay njiit def leen ñu donn suuf loolu it la ñuy ñaan ci suñu boroom nasran qariba mooy fitne yi ñuy dund tey ci coronavirus métti na lool waaye yàlla na ko yàlla teggi fuñ ko foogewul woon ci njéggalam ak yërmandeem mbokk ki mujjoon ci ñooñu nga xam ne ñooy ulul azmi min rusul mooy yonent yàlla isa yonent yàlla isa judd na ci jaww joo xamee ne nii yahudi yi yàq nañu la nga xamee ne nii mooy seen diine fekk suñu borom yàlla def ci moom kawtiif mu juddoo ci famille boo xam ni yàlla moo ñu koy nettali mboolem famille kaw suuf jéem mel noonu maamam moo tuddoon imran moo tax ngay dégg ali imran ba muy faatu soxnaam mi ngi ëmb doomam jii di maryaama waaye mu nekkoon ku baax ba mu faatoo yàlla wuutu ko gannaawam ca nga la way yow bàyyi xamal ne trésor bi gën a rëy bi ngay bàyyi sa njaboot mooy nga tege ci yoonu njub téete sa sa njaboot bis boo demee yàlla du leen seetaan abadan gannaaw ba yàlla nettali nañu maamam maamam mooy Haanna bi mu ëmbee yaayam Maryaama dana maa ngi mébét sama doom ji nekk ëllëg imaam di woote ci diine lislaam muy war a nekk mébétu bépp way jur mooy sa njaboot sax ci jaamu yàlla yàlla dogal muy jigéen jigéen jooje it yàlla def ko royukaay ngir mboolemi jigéen yi nekk ci kaw suuf ca mooy mboolem xale yu jigéen yi ngallaawaay xamal ne Maryaama bi muy toll ci fukki at ak ñett la nekkoon misaal ci dëkk bi yépp ñépp xam ne Maryaama gannaaw liggéeyu këram ma nga nekk ci jàng jàkka ja di jàng tawraat comportement bu rafet col gu rafet loolee dem ba yàlla daan ko fekkee ay fruits. ci jamono yoo xam ne sax fruit amul ca la ko yàlla defee kawtéef may ko mu am doom ca doom ja amul bàyyi kooku mooy Isa ibnu Maryam mu ñëw fekk ñaari musiba ci jamonoom benn bi mooy waa buuru Ruum nga xam ne ñu ngi nekkoon ak ceddo ak yahud yi nga xam ne ñooy sëriñ si jiite woon diine ji cay nekk di nax nit ñi mu ñëw na xamal leen ne lii mooy diine yàlla kenn la waruñu ko bokkaale dara dañoo war a diggal suñu borom jalla waala ñii di sëriñ su yahudi ya complété ak buur ba ñu ne kii daal day yàq suñu doxalin kon nañ ko rey loolu comme ni nga xamee ne tey mboolem ñuy woote ci tawxiid di woote jëme ci yàlla ña nga xam ne ñooy nogguti nit ñi di dajale seen alal di leen bayloo seeni tool dañ leen di déranger ñu ne kon nañ ko rey bañ demee ba dara desul lu dul rey ko suñu borom yàlla yëkkati isa daa di leen di lëntal ñu jël keneen ku dul isa ñu rey ko loolu lépp mbokk kon daf ñuy jàngal nit ki ni nga war a bàyyee xel buur bu tegewul fu neex yàlla bàyyee xel sëriñ su bon xamal ne isa ci condition yooyee la ko yàlla yëkkatee isa ibn maryama boobu nag li ñuy gëm mooy balaa àdduna tukki yàlla dana ko wàcce ci kaw suuf ndax deewul yàlla da koy nelawal ci kaw asamaan yi dana ko wàcce ci kaw suuf moom mi nga xam ne avant muy dem bégal ne àdduna bi ne yàlla dana génne sama gannaaw ab yonent boo xam ne ahmad lay tudd lépp lu muy wax ci yàlla lay jógee loolee mbokk kon ñeenti ñooñu ñooy ulul azmi min rusul yonent yàlla nuux yonent yàlla ibrahim yonent yàlla muusa yonent yàlla isa bu ñu fi yàlla dajalee suba insha allah nag ñu dem ci sangu sangi doomu aadama yi yépp suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu jiitu loolu ñu ngi ñaan yàlla defal ñu aafiya fi dunya wal axira di wax subhanaka allahuma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh